Kër ziar la. maa waaw nuyu la fan si ak ñi si mm. bismillahi rahmaani rahim euh, comme ni ñuy amee habitude di ko wax rek naa ngi sant yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di ñaanal suñu waajur bu góor yal na ko yàlla yéesal yërmande ci kawam ak képp ku dawlu di ñaanal euh, international bi nga xam ne moo fi jógee muy Pape Bouba Diop di ko di ko jaale mbokkam yëpp di wax euh, yal na ko yàlla teeroo aljana firdawsi nim ñu bégalee woon sa 2002 yal na ko yàlla bégalee noonu sa àjjana firdawsiya ah ndax 2002 ñëpp kontaan nañ ñëpp sedd na sonxal sedd na kon di nuy nuyuwaat waa Yaraax bu baax a baax di jël nuyoo bi tekk ci loxo kilifa gi fi nekk muy monsieur le maire Babacar Mbengue di waat suma staff si làmb di nuyu Père Ngouda Aliou Sarr Mamadou Sow Souleymane Diaw ak ñi nga xam ne ñoo nekk fële muy fàllu ay Serigne Ndiaye ak ñoom ñëpp ñu nuy nuyu ñëpp di nuy suma rakk mbër yëpp fi nekk di nuyu lu ko dalee ci Lossot booy Boy Diop Pape Diop ñoom ñëpp maa ngi nuyu di nuyu booy fi nekk jàmbar jàmbaar ak caatu yaraax ñëpp maa ngi nuyu képp kuy mbër te dakk ci yaraax rek maa lay nuyu di la sargal di nuyu waa quatre appuis bu baax a baax a baax di nuyu sama ménagère muy Sourou Fall di nuyu ñëpp daal di nuyu yarax surtout yarax nag maa ngi nuyu ñëpp képp kuy fan si club Moussa Ndoye maa ngi lay nuyu di nuyu Pape Sini bu baax a baax a baax a baax. Moussa sa waaw am na 14 victoire 4 défaites. 14 victoire 4 14 victoires yi kan ñu si gën a xam. ñeent ñu mu si. ci gën a xàmmee. yi mu si gën a xàmmee waaw ñu mu si gën a xàmmee mooy que euh, Lac Rose daan naa ko si. Ah. ka nga xam ni xale la ba xam ni ku am talent la. daan naa Bébé Saloum. Mm-hmm. daan naa Mamadou Ndiaye Modou Anta tey daan naa ko tamit. Mm-hmm. Aliou Seydou daan naa ko. Mm-hmm. daan naa euh, ay Amadou Camara ay Dolf. waaw si victoire yooyu. ñu taxaw si sa combat ak Lac Rose. waaw Lac dara dañ combat bi dañ ko dox dox bu gaaw rek dox bu dox bu gaaw la nag waaw combat bi taxawum taxaw taxawaay bu yëg bu gaaw sax. waaw taxawaay bu adversaire wala instant boobu loolu loolu lu taxoon nga jël Lac Rose exactement ngeen bokkoon adversaire naa am na ku ma Mamballa dafa mel ni bëri nag Lac Rose Lac daan ko. waaw Mamballa daan na ma Lac daan ko. waaw xam nga combat bi bi may taxaw de dafa fekk ma génn sax ne ma woon Dakar ñu woo ma ni ma foo nekk ma leen maa génn ñu ma noo mën a def ba ñëw 2S ñëw fa. ma leen lu waral loolu juste ki nga xam mooy Père Ngouda maa ngi koy ñëw di ko nuyuwaat bu baax moom woo ba wax ma tamit li ma ko dama ni ko ah man de awma problème boobu. d'accord nga fekk le 2S mun ma waa fekk nañ fa daje bi ñëwee Moustapha Gueye lañ fa fekk ak papa Abdou Fall ak ñoom Dieye ak Abdoulaat. action ménagère ñu taxaw ñu waxtaan ak man man leen des si yéen combat bi taxaw taxaw bu gaaw sax waaw nekkul lu ñu tëkkoonte man ak moom wala dara non non waaw combat bu taxaw bu gaaw sax benn fan la de waaw waaw waaw non xam nga xam nga booy bëreeg ndaanaan ku mel ne Lac Rose nga dégg dara lu ñuy wax mooy dafa dafa soxor te dafa bëgg day imposer li mu li mu bëgg ngay def fa force encore tamit ma seetaan ay face à face am danaan danaan adversaire bi nuyu ma far force waaw waaw nuyu ma far force dakaw gis naa ko mu ay garga gis naa ko mu wax euh, Pamor Lo yëpp ay nuyu ma far force la moom dakaw tàmm na ko slogan am la nag vraiment mu nekk xam jàmbaar la jàmbaar la vraiment jàmbaar la waaye. jur waaw xeex ak bëri. ak day def sa que combat bi moom bi ko jëlee li ma sama entraîneur njëkk a wax Aliou Sarr ma koy nuyu bu baax a baax a baax dajal ak moom day ñëw da dem. waaw dajal ak moom fu mu ñëwee dajale ndax xale la xale nga. xëy na njëkk a bëri mën naa am mais xale la xale nga. dajaleen bu bu ni nga xamante xaw ma cin la ba nga xam ni. fu ruq bu ruq bu amul ruq bu war a sedd pour benn ruq warul sedd te bu la bu mu la wan dara la nga xam ni lu mu xool si yow na ko gis yow lu mu làmb si yow na ko daj yow tamit loolu làmb si moom na nga ko daj te xam bi di nga ko daj parce que dañ ko joxoon cër bi joxoon nañ ko cër waa nga xam ni adversaire war vraiment ah bokk na si adversaire yi ñu gënoon respecté waaw waaw bokk na si adversaire ñu gënoon respecté parce que def na tamit lu jar nga xam nga bàyyi ko xel parce que combat am day neex day métti day euh, waaw day ñëw fecc te Bijou nag waaye rax ñoom ñoo gën bëgg combat bi ndax waaye rax bu slogan bu ñu génne woon bu bees jour lañ dajji benn paquet rek teg waaw indi fa la xam ni jour bi estat ñëpp ñëpp signé ñëpp signé ni Moussa Ndoye li ay supporteurs am def. kon loolu sant yàlla bu baax di remercier tamit sumay supporteurs bu baax ndax lu mën am ñoo ma dooleel waaw. léegi. Mhm. waaw. comme ni ko ñëw sama kaw ñu dajee xeex dóor ay gauche droite ya nga xam ne metti na trop mu daw jël ma ñu daw génn ma dóor ko tànk. Mhm. yëpp am na si. waaw mhm. bi ñu abir waatee si biir ñu am benn xeex ba nga xam ne dañu ko def corps à bu ñu def si biti. at bi ñëw avertir avert man la jox avertissement waaw jox ma avertissement bu ñu dee jàppante bi ñu paree nag ñu amaat benn accord benn euh, jàppante ba nga xam ni dafa metti parce que boobu kuy fu ne jaar na fa. boobu tamit moom nangoo na jël na samay coup waaw moom jël na sama ñeenti ku yoo xam da ko jël vite si ñeenti coup yooyu mu jël noonu man tamit xam naa li may def moom bu baax mais yàlla suturaal na ma bi ñu atee après affaire u mbër du moom moo wax ay collègue am nee nañ Moussa Ndoye di ko loqi sna jógu fii mais teewul maa ngi taxawaat ci géew bi di ko xaar pour bu ñëw ñu bëree waaw loolu la ñuy wax mais xam naa ni baaram boo koy dóor di joxoñ dóor amul day dam waaw loolu ñun jànguñu nag mais xam nañ ci dara loolu amul mais nag de ce reste que problème boobu ñun tamit dañ ko gëm ni kat yàlla ñu jox moo ñu jox ndam si lim ñu joxee ndam ñu accepté loolu. waaw ñu si noonu lañ ko joxee ñu accepté loolu. dagg nañ ma si waaw dagg nañ ma si. c'est dagguñu ma presque neuf cent et quelques millions man sama combat boobu presque un million manqué naa un million un million un million cent millions xam nañ ko jëloon ci sama combat ak Lac Rose un million cent mille lañ ma dagg. lu ma gën a planifié je sais xam ma daanaka ñëw naa sama manager vraiment ñëw ni ma dagg nañ si ko dagg nañ la de dagg nañ lu musul dagg. ma ne ko lan munoo man dagg bi ma njëkk a dagg si àdduna bi gën a cher trois cent mille la te booba sax d'accord naa ñu dagg ma ndax mbër mu war a ñëw tuus tuusoo ñëw rek teg sa cumbukaay dem bëri ji ndax problème mu tëli la woon ak combat ba nga xam ni dañ ko doon lijjanti mu métti lool ngay pan avant ngay àgg ba nga ñëw da nga ñëw rek tuusuma sax dama ñëw rek bëri. dama ñëw rek bëri mu sama combat bi ba dama ñëw rek bëri dama ñëw rek ci géew bi. waaw dama bëri ji direct ñu dagg ma ma accepté mais boobu daggaatuñ ma. waaw dagg nañ ma si non non parce que dama tardé ay temps. waaw dama tardé temps yi ma tardé non du touche bi temps yi ma tardé moo bari léegi nag gars mu aw ma temps bu ma war a touché gars yi ma léegi lu fi des ma leen dam bëre. mais bu booba dama dem si meeku daw si géew daw si géew bi rek yëngal comme xam xamee nañ ma ko ma yëngal tuuti daw dem si géew bi waaw loolu nag kon nangoon naa ko. parce que dag lu nga koy xaaruma la kii bi dama ko dencoon mais xam xamul fan laa ko tegaat mais dama dencoon riche boobu parce que métti woon na mais après nag loolu garaawul quoi. waaw parce que parce que dañ ne xaw ma ku xaw ku ku ba nga xam ne waa règle waa irrégulier bi ma koy dóor boobu génn naa man. te booba su ma taxawoon daf may dóor moom ñu dañ doon dóorante waaw dañ doon dóorante ñu dóorante ba génn saako yi kay noonu après mais nag loolu kam passé na wax dëgg yàlla ma sant si bu baax a baax a baax parce que gis nga ni ki loo warul lekk doo ko lekk man dama sama loolu sama sama bopp la nekk lu ma warul lekk du ma ko lekk waaw waaw lu ma warul lekk du ma ko lekk xëy na xaalis boobu noonu ñu ma fayoon sama combat Lac Rose loolu waroon na si deñ te loolu kam deñ na si sant yàlla bu wér waaw amaana moo lekkoon ko moom def ma leneen mais nag vraiment mu nekk jàmbaar waaw jàmbaar. waaw loolu si lañ liggéey mhm. a nekk. non kattan de xëy na blessure am na mais ñàkkul kattan déedéet mënu ñàkk kattan parce que même bu loolu fa fu mu bokk la mënu ñàkk kattan waaw te ragalul entraînement. Mhm. ragalul si làmb ñàkkul mën a bëre. nit boo loo mën a dalante bon pare nanga nga waxal ko li ne si moom waaw man du ma dammat mbër mbër man su ma bëree yow amoo doole ba pare man la amoo doole soo ko amee man la am nga ko soo mënee bëre man la mën ga bëre waaw. léegi nga jógee dama yàkkamti sama combat naagu ak doy de xeeb naa ko dama xeeb sax. waaw nit ki da nga wax dëgg dama ko xeeboon trop. parce que gisuma woon ci moom bëri bu ma mën a gisuma ci bëri bu ma a daanaka quoi. parce que mosu mosuma ko gis fu mu bëree ma bëri ba nit ñi jóg taxaw. waaw mu xëy na mu am te seetaanu ma ko. mais comme man yàlla def na mosuma ko seetaan ci gis bëri ba nga xam ne moom vraiment dama gis ni kii war na mën a sonal Moussa Ndoye ci bëri. ci lépp vraiment. mais dañ ne xaw ma euh, jour bi ngay daanoo ngaa gën a doon cuune si àdduna mais bi ñu demee si géew ba si stade bi gars dañuy wax ma leen mais boo gisee man avant bi def présentation maa ngi fecc dama pare di di yëngal foofu parce que li yëngal foofu mooy que dama ni dama ni tey tey tey li ñuy gis li musul gis da yàlla ne ma bis boobu tey tey ngay tey ngay daanu. waaw mu nekk la nga xam ne man dama si dama si fier xam ne dama fier te dama naan alhamdulilah rabbil alamin sama daanu Garga Mbossé ku toog huit ans déggu muñal mbër laajal ban mbër mu fi toog huit ans à part Yékini boo compté waatee amul mbër mu fi toog huit ans te daan woo déedéet nga ne yaa ngi bëri te huit ans yi maa ngi bëri mais huit ans nga toog ko bëri woo moom taxul ñuy wax huit ans ba chaque at nga bëri chaque at nga bëri si huit an juróom-ñetti at ba laa daanu. waaw. mooy bu bu merci déedéet merci. 2011. waaw. waaw mi ngi noonu Ama Baldé waaw d' accord gis nga dama jógee ci CLAF 2011 jël pied ma ñëw Malick daan ma le 31 juillet 2011 mooy bi ñuy bët euh, Balla Gaye moo bëre grand combat bi ma jógee foofu mani gars yi nañ xoolaat ñuy dem. ànd ak ñi ma war a àndal di dem di dem jóge fa 2011 ba 2019 te at mu jot mu bari amul benn année balance c'est la ma def ko te lu tax ma def ko Covid bi am moo tax ma def année moo tax ñu def année sax laay wax waaw. Mhm. léegi nag loolu passé rek comme ak gàllankoor bi ñu am yëpp. dëgg la léegi promoteur ñu ngi contact. waaw ñu promoteur ñu ngi wax ñu ngi may seet si ndax loolu mënul ñàkk ndax Moussa musaa dafa xew. Moussa dafa bokk déedéet Moussa dafa bokk Moussa dafa xew yàlla def na wax dëgg yàlla pour mu promoteur ñi ngi wax bañ ma laajee sama surtout sama adversaire ñoom si ñoom lay dese mais desee tur si man li gars yi naan maa ngi si li ma war a nekk te nekkuma si mooy du nekkuma si ay waxu caaxaan dépasse naa fu may caaxaane ndax li tax dépasse naa fu may caaxaane xam nga nit ki nga wax la nga xam ne après naan non kii la fi mu wax fa la ko teg non man dépasse boobu

yow loolu nga ah. Ah, am problème da si moom. non garaawul. génne mer la fanaanoo ah. te. <laughs> Euh, déggal mu la wax da nga ne dafa Yékini Junior dafa mer man la gaynde mer la fanaanoo gis nga ma jox la benn olof tey kuy lekk lu sax karaw lu saxul karaw jaru bàyyi woo fa lu saxul sax karaw. boo gisul lu saxul karaw kon noo koy def. da gën a yomb. waaw parce que damay luñ ci xiwul nga ne ko ci ko ciix lekk kon lu ci xiw ba pare fu loo koy def amul mënut a ñëw. du poñse de muy ndaanaan di bëri kat di ndaa di kulli fadirin bëri ñoo xam ne bëreeguma ak ñoom yi nga ñëw ay la de Guiers ma ma rêvé bëri foofu bëri tafatin bëri isaapu yi bëri punkal yooyu ma ma bëgg dem dama bëgg dem jaar si moom non mënu ma juum juumaat tayef la waxoon naa ko 2011 laa ko waxoon dama koy waxaat duma juum duma juumaat mënuma juum fan yi passé bëgg a juumaat tey déedéet mënu nekk non dégg lu ma wax sama supporter li ñu wax dafa leer loo fi jël ndam rek lañ soxla si kàttanu yàlla te am naa yaakaar ni combat bu ma jël yàlla dina ma defal ndam. mën naa si moom dara man ku ma mënul si yow dara du ma la laaj. moo du ma sax wax say wax mën naa si yëgin si yow dara te buñ jàkkandoo ma def ma def si moom dara. non man du ma ko seetaan. lu ma ko de. mukk jamais musuma ko def. ne samay entraîneur ñu ngi may dégg musuma ko def. pour lan léegi boo ko defee léegi ngay tricher loolu mu ngi mel ni ngay jàng tey nga xam ne suba lii nga war a def nga bind ko sa si guddi gi dem toog lal feuille bi say tànk di bind di xool di bind loolu tricher la man du ma tricher. non non man dañ ma dañ ma jàngal li may jàngal mu ngi sama bopp. yi nga si wax xam comme si ban. ci làmb a a mën ci làmb. non dara. non moytu ma dara si moom waxuma waxu téye micro moo tax may wax. amul lenn lu may metti si moom. kan man gisul jël ma daan mu dant. waaw. gis na ko. amul may metti non vraiment si Yékini Junior sincèrement mbër la mooy mbër. tey bu ñu la boole tamit day jël avance mu jël avance am ma jël sama avance ñu bëri. waaw na moom moom mën na ëpp doole. bëri moom wax dëgg li ma la dama si ndaanaanu ndaanaan yàlla moom wax defal du man. fuuf. lépp maa ko dàq. maa ko dàq xeex maa ko dàq bëri. non man dama koy jox pour l'instant. pour l'instant waaw. maa ko moom. waaw. léegi bëri ak xeex. waaw. déggoo li ma la wax de. dama ko jox du maa ko jox doole ji. waaw xam nga jëmm la ñuy jaawale la gars yi di jaawale doole waaw jëmm dafa doy waar te loolu am benn problème te wax dëgg yàlla man jàmbaar laa bëgg te jàmbaar la gaynde la non nu ko jël rek non amateur yi sax dañ ko bëgg léegi man dama bëgg moom mu jël ko na jël combat bi bu jëlee combat bi ah ñu ñu ñu ñu xool rek waaw ñu xool fu war na di mujjee ak bëtam waaw daan. te mën nga ko yow yëkkati bu jëlee semence ma yi ngi si ah nañ ñu woo nañ man leer na man leer yàlla yàlla moo ma tiim su ma tuddoon ba 4 heures du matin ñun ma kaay yi ngi nekk fee ma fekk fa. billaahi